comme ni ngeen ko xamé rek ñun géejawaay la ñu juddoo fi lañu dëkk ah mën na ni dëkk la bo xamni def nañ ci plus de 30 ans biñu ñu ba légui biñ ko génnee yagul kon jaadu na ci ñun tay fièvre bu toll ni bu nekké tay comme ni ko monsieur le maire waxee géejawaay bokku ci dëkk yi nga xamni bari na tay fièvre baa ngi fi té likoy propager bari na ci lu joggé ci jeunesse bi nga xamni ñoy dem ci plage yi ñoy dem fu nekk ñu sensibiliser leen té ku ci ne xam na ni fièvre bi tay Linga nga xam ni bokk na ci li nga xam ni moo koy gën a saafara bi ci jiitu mooy takk masque comme takk masque daf ci doon am importance ci luy aar nit ñi ci jàngoro ji ñu xool ni rek en tant que jeune dëkk géejawaay en tant que koo xam ni fi nga juddoo jaadu na nga jël ci sa ñaq wala ci sa alal mu néew ko bari nga jàppale ko population géejawaay loolu moo waral rek tey ñu indi dix mille masques débuté ko ci campagne bi ñuy def pour jàppale population yëpp ci wàllu masque pour géejawaay mën a bokk ci dëkk yi gën a aaru bokk ci ville yi nga xam ne dina gën a aaru loolu rek moo taxoon ñu ñëw def ko ñu ngi gërëm ñëpp nag di leen sant di ñaan yàlla lépp lu ciy yool yàlla nañ ko yàlla booleeg ñëpp lépp lu ciy xéwal rek yàlla na ko yàlla wasaare ci biir Sénégal asalaamaaleykum wa rahmatulah. sunu xarit la sunu àndandoo la waaye dañuy ànd di liggéey ci njëriñu géejawaay. ma koy gërëm moom ak équipe mu ngi ànd tey ak Baye ak Mohamed ngir ñëw jébbal ma fukki junni masque dix mille masques yoo xam dafa am yéene may ko population de Guédiawaye jaarale ko ci ville de Guédiawaye Aziz nag su defee loolu du guléet ndax taxawaayam fii ci géejawaay kenn du ci def ay seede ndax lu feeñ la muy wàllu social amul lenn loo xamante ni la day xew ci géejawaay muy xew-xew bu bette walla xew-xew boo xam ne dafay ñëwaat julli yi weeru koor tabaski tamxarit gàmmu wala magal les lu xew ci géejawaay Abdou Aziz Ndiaye mu ngi de def loxom di si doole yi waaye di askan euh, kon Covid Abdou Aziz def action yu am solo au plan national yo xam bi ci ci appel de fonds

ci Abdou Aziz ci li nga xam yàgg na ko def defaat ko tey di ko ñaanal borom bi yàlla na yàgg di ko def